téléspectateur Equivox TV yéen amateuru lamb ñu ngi fas yéene waat jàkkaarloo waat ak yéen fii ci suñu journal de la l'arène ma ci ànd toujours ak sama càmmiñ euh, sama incontournable Babacar Babacar nuyu naa la. waa suma rakk suma xarit ah Oulimata Seck namoon naa la. di la wax ne démb gisuñu ci plateau bi ah, loolu day am souvent. Mm-hmm. mais ngi lay béggee bu baax di la ñaanal jàmm di la wax ne koo nam rek. Mm-hmm. nam na la. maa ngi lay béggee waat téléspectateurs yëpp tamit. <laughs> lay béggee waat bu baax Babacar. bu ko defee ah, dañuy daal di rek dem seeti suñu revue des titres ak Babacar te dellu si waat. wa rahmatulah asalaamaaleykum mercredi 31 mars 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy dooree ko yëglikaay bi di suñu lamb nag tey xëtam mu njëkk fa mu ci xëy génn fenn la maanaam Eumeu Sène mi nga xam ne mu war a bëre ak Lac de Guiers numéro 2 li yëglikaay bi xëy tey di ca wax ka yi wax nag mooy ki nga xam ne mooy microcentral làmb ji di Hippo ngaari mu faas Hippo nag moom la mu xëy xamle daal nee na combat boobu moom wax ji na leer naññ ipone ne nag len na am favori bu ci amee ñu ne ko kan la mu ne du kenn ku dul Eumeu Sène mi nga xam ne mooy borom taay si nga loolu daal mooy ay waxam jàpp na ne tamit kii nga xam ne moo di Lac de Guiers numéro 2 même bu Eumeu Sène nekkee favori ci kanamam Hypo Ngary jàpp na ne Lac walta calculer dara ci boobu combat li mu war a def daal mooy ñëw teg ci birik wane boppam bu baax a baax a baax loolu mooy ki nga xam ne ni mooy Hypo Ngary ba tey yëg kay bi di suñu lamb dem na ca Ndar Saint-Louis du Sénégal def fa micro laaj waa Ndar ci combat boobu nun ko gisee waaye Ndar Ndar ya moom la ñu jàpp moom ki nga xam ne nii moom moo di ama Sène daal la ñu gis ne moom moo man Lac de numéro de ñoom daal bu doon ay vote lañ ëmm seen la nu sànni seeni xob keneen koo xam ne nii mook ëmm ñoo dëkk muy rakkam muy Ama Baldé moom moom moo waxal boppam ka yi bëreel di Modou Lo ne juróom-ñaar ci yow maa leen man maanaam bu ëndee juróom-ñaari Modou Lo Ama Baldé ne na maa leen man fuuf duma sax seen morom te itam jàpp na ne bis bu buñ ca yeggee dana xam ne loolu ma koy wax du ay caaxaan du samay wax Ama Baldé moo xëy tey di wax loolu ñaar ñoo xam ne moom dañoo bëgg a mënante ba tax ñu jox leen ay avance muy Safi Dieng ma nga xam ne nii moo dëkk ca Cees ak Ousmane Gandigal ma nga xam ne moo dëkk ca Gandigal maanaam ca Mbuur yëglikaay bi na nag tey jii ñoom ñaar danañu def benn jàkkaarloo face to face daal la ko yëglikaay bi tudde tey fa nga xam ne moo di ca Gandigal keneen koo xam ne nii xëy na di wax mbër yooyu yuy bëre bu ñu amee association seen secrétaire général moom xëy na di wax di phrasier wax na ne daal ministre Matar Ba jox na leen la nga xam ne nii moom moo di xaalis boo xam ne bu takku la bu toll ci fukki million francier francier nag moo xëy wax li jàpp ne seen kuréel googu tamit la ko commencé ci ba ci Kayre ba ci Xaarim nga jege ba ci Gris Bordeaux ku commencé jiite daal ci waxtaan lan commencé laal ba fal borom maanaam nekkul loo xam ne dañ koy voté wala yu mel nekki noonu maanaam daal waxtaan ba déggoo lay doon ne diw mi moo nu jiite ñu jox diw moomu mu jiite leen loolu mooy waxe ka nga xam ne nii moom moo di fragier ba tey moom sunu làmb xëy na ñu xamal tamit ne boo bëggee dégg dëgg daal ñaari doomi Diofior yi day maanaam wane nañ seen bopp bu baax a baax ci dimanche ji ndax Doudou Sané ma nga xam ne nii moom moo dëkk ca Diofior le 29 jàpp le 30 mars lamb joo xam ne doon na am di ab gala fa nga xam ne moo doon ca ndàngaan daal moo fa teg loxo jël lañ fa tegoon yóbbu ko Diofior ñu ne déet ne waay ba tey ca Diofior googu nga xam ne tamit moom la ñu dëkk ñoom ñaari mbër yi óbbali tamit lam fa def le 28 ak le 29 daal mooy maanaam lañ fa tegoon di ab xaalis ak ay nag lépp la nangu teg ci ab loxoom yóbbu joof yor loolu yëglikaay bi moo xëy caw ñëy dinu wax lu mel ni ki noonu buñ fa jógee taxu dem record record ñëw na ci ëmma ak lak mel ni ki nag sook boobu moom nar naa metti lool waaye ñi nga xam ne ñoom ñooy directeur technique régional yi daal ñu leen di wooye ay DRT xëy nañ tey di dé di décrypter combat ba maanaam di ca wax seeni xalaat Moustapha Ngom maanaam ma nga xam ne mooy DRT wala boog mooy DTR bu Thiès moom la mu xëy xam ne daal ne forcé maanaam daal ak jàpp ne na loolu bokk na ci loo xam ne ni moo arrangé ëmb waaye lak moom jàpp ne combat boo xam ne daal maanaam diggante bi day am espace bu yaatoo yaatu ne na loolu moo arrangé ki nga xam ne moo di lak Ibrahima Khalil Keita moom ba tey moom moom moom mooy moom mi nga xam ne nag moom mooy Khalil Keita di DTR bu Kaolack wala boog bu Saint-Louis du Sénégal moom la mu xëy xam le ne na nag ki nga xam ne nii daal moom moo di Lac de Guiers numéro 2 ak loo ci dégg daal maanaam tar moom wuru ca mën a ñàkk Jules Pascal Senghor tamit ba tey wax na moom moo yore lambi Kaolack tamit di DTR ba moom tamit xëy na xam ne daal nee na bu dee ci wàllum technique la ëmb moo ëpp technique waaye Lac de Guiers numéro 2 moo gën a serein maanaam moo gën a dal yëglikaay bi moo xëy tey ñëw moom record wax nu lool ba tey bu ñu demee ci Equivox tamit ñaari mbëre mel ni ki nag démb moom gis nañ leen ci Equivox muy Lac wax na ëmma wax na ku ci nekk wax nga ci micro Equivox la nga nar a def dimanche le 4 avril yëglikaay ba wala boog fa nga xam ne nii moo ci Equivox su TV fa la wax jooja nekk waaye li am solo daal gomis mooy yàlla nañ fi yàlla bàyyi ba dimanche ak jàmm rek que le ci ñoom ñaar voilà moo doonoon donc suñu revue des titres ma di si jaajëfal bu baax a baax euh, Babacar nga xamante ne saa su ne daf koy defee ni ko bëggee ah saa su ne également dañ koy dooree rek ak sunu quotidien bii di sunu làmb tey nag ñuy euh, dooree kii nga xamante ni moo di Ipongaari moom nag mu daal di joxe kàddoom ci diggante Eumeu Sène mi nga xamante ni ak Lac 2 ñoo war a jàkkaarloo le 4 avril moom nag Ipongaari ne Eumeu Sène part favori maanaam. maanaam daal euh, Babacar fi mu ne nii jàpp na ni Eumeu Sène mooy favori combat bi war a am le 4 avril. waaw Ipongaar yi ñu koy nuyu di ko ziar suñu papa la di suñu lépp nekk laaj ci làmb bu ñuy dugg ak tuus yëpp. moo mhm. suñu papa Ibou Ndiaye ñoo ko ñoo yore loolu. Mhm. moom nag defe naa tey bu waxee ci làmb. Mhm. war na si wax parce que li tax mooy koo xam ne fekk nga jamono yu ñoom mbay gi ñoom duubales ñoom papa Diop Boston ak ñu leen jiitu maam Gorgui Ndiaye. defe naa kon nekkuloo. wàcc bes ci mbir mi ñii bëree tamit di ëmmaag lak ci kanamam la ñu bëree ba yegg si fii ñu yegg si tey mhm. defe naa ne bu jàngatee ba ne fa am mooy favori mhm. dañ ko koy nangul te itam man danaa ci bokk moom xalaat ndax li tax mooy ma ciy bokk moom xalaat mooy mhm. Eumeu Sène bu bu fekkee dafa bëri ak lak ñaari yoon ñu mat si nil premier combat deuxième combat Eumeu seen daan ko kon suñu waree dem ci trois troisième combat bi ëmm mooy nekk favori bi. loolu sport defe naa xel nangu na ko ñun nag à tout moment bu ñuy joxe suñu analyse fi ñu koy teg mooy ci cadre sport. du ñu xool nag li neex ma Samba wala ma Demba mais dañuy jéem a teg suñu ay wax. ci loon ci yoon li logique. Mm-hmm. parce que loolu la yàlla bëgg. la ca des nag après keneen ku mu des ci yow nag. Mm-hmm. yaay xool noo koy analyser. Mm-hmm. loolu moom yow lay concerné. mais man li mu wax. suñu d'accord avec moom parce tamit ki nga bëril deux fois ngeen niil ngeen dellusiwaat mu gagné la ngeen war a dem ci troisième combat da ngay nangul ne ka mooy mooy sa favori te Lac du bañ loolu. dëgg la ba waral sax mu ne Lac 2 ne doit pas calculer maanaam ki di Lac de Guiers warul sóoraale. lu kon loolu ba tey day confirmer favori bi rek parce que tax warta euh, calculer tey mhm. moom moo am. yëg-yëgu war a fayeeku ci ko koo mat si ni la ngeen delsi mu daanaat la mhm. kon tey boo delsee mhm. maanaam même booy calculer itam mhm. calcul ba war na nekk calcul boo xam ne ci côté technique nga koy teg ci loo xam ne sooy dem xamal ni ngay demee booy xeex xamal nooy xeexee booy songi noonu parce que tamit doo calculer doo calculer lu tax rek nga ñëw rek xëpp sa bopp si kaw waaji parce que bëree nekkul xeexu mbedd maanaam ay sema la da nga am ay entraîneur ay stratégie la ñu ne nii ngay songe ulimata nii ngay dóore heure bi ngay dem heure bi ngay taxaw mais combat bu neex la daal macha di ndar ndar itam ñu ne ñoom tam il vote pour Eumeu Sène ñoom daal ëmb nañu àndal waaw parce que dem mbuur lag lañ fa teeloon mm-hmm. dem bi ñu demee mbuur mm-hmm. micro trottoir mm-hmm. waa mbuur ne nañ lag la ñu gis tey ñu dem Saint-Louis du Sénégal ñoom ñu ne ëmb la ñu gis loolu nag moo lay wan ne wute bëgg-bëgg wu limata moo tax marchandise yi di jar moo tax muy neex it waaw neexal combat bi <laughs> kii di Ama Baldé moom persisté na te signé na ah, ne moom il est plus fort que sept Modou maanaam ah, moom daal juróom-ñaari Modou bu buñ leen tegoon tey jii moo leen mën mën na persiste et mooy ku dëggal boppam ca la muy wax mm-hmm. waaw Ama day euh, dama naan su yegsee fii si làmba xam nga lu ko fi indi sañ-sañ bu bari parce que noonu lay bëree mm-hmm. li mu lay wax nii mm-hmm. loolu la gëm te noonu lay bëree ci làmba loolu lañ ko xamee ñun boobu bi mu débuté kombaam ak Ousou Ndiaye kati de ba tey fi mu yegg si ba béyumba bi mu mujj ma ko paasoo du mooy adversaire fu mu yàkkee nag kam ñàkk na ci nag ñaari combat muy diggante ma ne sa guy gi mm-hmm. mais gagné ci ay combat yu maga maga mag defe naa tamit loolu mu wax ah fi mu nekk nii ku nekk war nga ko mën a xaar ci moom mu génne ko maa man juróom-ñaari Modou Lo mm-hmm. loolu la gëm loolu moo ne ci moom et lay doxee mm-hmm. te itam nit ki tamit booy jëmee ci benn affaire war nga gëm ne que lii may song war naa ko mën a daan di ko doxee di ko waxee ba ba leneen di am lool mooy nit ah pour man waaye nag dafa jëm ci combat boo xam ne tamit ki mu ne moo moo man juróom-ñaar ci moom kooku da di jàmbaar Modou dafa naqaree rek lay affaire am mm-hmm. yaa ngi dégg waaye nag ah, ama mi ko wax tactique eh Moodu Moodu kay la ci moom ci caay-caayug làmb Oulimata kenn mënu koo calculer dëgg la waaye nag uh-huh. ku am caay-caayug bëre uh-huh. ak koo xam ne da am sañ-sañu bëre ñoom ñaaree daje uh-huh. moo tax ma xam ne combat bu nar a neex la foofu ndaw bés bu nar a neex kon Luc Nicolaï <laughs> jërëjëf moom itam jërëjëf Luc Nicolaï dañuy daal di dal ci euh, combat bi nga xam ni euh, c'est prévu pour le avril fële sa Thiès euh, mu amoon nag face à diggante Kiri Safidien ak Ousmane Gandigal ñi nga xamante ni euh, ñoo war a jàkkaarloo daal. tey waaw tey la ñu war a daje sax face à face bi tey la. Mhm. waaw loolu mu mel ni foofu tamit dañuy nuyu suñu tonton Sidi Diakhaté. Mhm. da ngay dégg Sidi Diakhaté. dëgg la Diakhaté Kaba Yéeri doo dégg waay woo. ah xarit Youssou Ndour <laughs> kooku mooy borom Thiès Thiaye suñu papa suñu xarit di suñu peer di ku baax moom moo tëgg combat bi pour le 10 avril nga xam ne moom yàlla yàlla daf ma booleeg moom lu muy def rek ne Babacar ma ko ci nuyu di ko ziar tonton si di jaxate vraiment di ku baax mhm. moo tëgg Ousmane Gandi Gall ak Safi Dieng ma xam ñaari mbir yi bu baax mhm. Safi di ko mën a bëre mhm. nekk écrit Omar Diko ca Thiès saf xorom lool Ousmane Gandigal mën a bëri mën a xeexal lool dëkk ca Gandigal ci côté Mbour mhm. kon defe naa bu ñu waree jàkkaarloo tey le 10 nekk seen combat mhm. ah defe naa kun le 10 ulimata mhm. ku dem ca Thiès daa gis lu neex a neex ah du mën a ñàkk parce ñun ci làmb ñuy dox rek uli lu bëggal gaay rek dëgg la dañuy daal di dem ci kii nga xamante ni mooy secrétaire général des lutteurs hein, du Sénégal. Mhm. moom nag nee na Matar Ba nous a donné dix millions de francs CFA Matar euh, Babacar. phrase yi mu wax loolu. Mhm, moom mooy seen secrétaire général. waaw loolu day bu amee defe naa ne def leen ko jox xanaa bu fekkente ne jox na leen ko en mhm. tant que ministre des sports. mooy xëy na lu gën a tax. ñu sàmm seen association. gën a mën a dimbalante parce que ci association boo gis des fois mu am ay cas social. ku ko am problème bi ku am problème ba mm-hmm. defe naa tey bu leen ministre bi soutenir ak 10 millions mm-hmm. loolu pour ñu gën a renforcer seeni kees la ak ñoom la ñuy cotiser di ko dajale pour ëllëg mm-hmm. bu leen li ñuy li wax cas force majeure bu leen dabee ñu mën ko régler loolu defe naa lu rafet la li ñu leen di wax rek mooy nañu fexe ba seen kuréel googu ñu sàmm ko teg ko ci dëgg di waxante dëgg loolu am na ci solo bi ci des tamit ñu nangu parce que mbir euh, mu mu waroon ulimata nag fawes jiite ko ñiy jiite. Mm-hmm. ñoom nañuy jubal nañuy teg mbir yi ci yoon. Mm-hmm. ñi nga xam ne ñoom la ñuy jiitu tamit di bàyyi xel ñi leen jiite jox leen cër bi ndax nit kenn kenn du jiital ni nag uli ba pare di ko fakkatal lu wóorul Babacar gala de lutte bi nga xamante ni euh, ca Ndangaan nga xam ne amoon na diggante 29 ak 30 mars kii di Doudou Sané moo ko daal di remporté Doudou daa fi lañ koy wooye ci làmb ji muy xale bu am sañ-sañ moom tamit ci lit simple day wane boppam ëpp mhm. ku doy waar mhm. làmbam da koy xumbal ba mu neex fekk naa ko kere ca Gàmbi mhm. te li garaaw mooy gis nga samedi ñëw na Ndakaaru Serigne Ndiaye numéro 2 éliminé ko mu solaat dàllam dem Zawal gañe tournoi bañ fa tegoon mm. continuer dem ndàngaan gañewaat lañ fa tegoon kon moo lay wan nit ñi bëri rek la ñuy def amuñu beneen soxla bu dul bëri. ñu koy félicité ci loolu moom Doudou Sané doomi jof yor. dëgg la félicitation mhm. ci mhm. euh, ndam loolu. Mhm. di wax également ci euh, gala lutte de lutte ba tey mais euh, cette fois ci fële sa jof yor. donc amoon le 28 ak 29 mars bii paa nag kii di Obali moo ko remporté. waaw Obali mooy Ibou Ndiaye. moom lañ naan Obali moom itam di mbëru simple mbër ki dem ku ne gis na li mu defanteeg franc ci terrain gaal gi dimanche passé. ba mu fa jógee daa takkaat ay dàllam. wutali fa nga moom mooy ca jof yor nga xam ne moo di dëkkam. lañ fa tegoon xaalis la woon ak ay nag juróom-ñaari nag ak xaalis mu jël lépp mooy li ma la wax ci mbiru simple yi rek ñoom nii la ñuy rek ñoom <laughs> euh, daal di dikk nag euh, ci bi nga xamante ni mooy le record di ci développé waat toujours di leen fàttali rek ne à chaque fois dama ciy ànd sama xarit Babacar sama hmm. càmmiñ <laughs> tey nag Babacar euh, le record moom dafa xëy wax ba tey ci ëmm ak Lac 2 mi nga xamante ni Euh, lii di euh, directeur technique régionaux yi dañoo xëy décrypter ko maanaam jàngat ko tey ji Babacar la lan nga ñuy développé ci loolu noonu. waaw li ma gis ñoom ñu wax day parce que par exemple wax yi sorentewul ndax bu dee Moustapha Thiam wala Moustapha Ngom la. Mm-hmm. moom mooy DTR bu Thiès. Mm-hmm. moom jàpp na ne maanaam combat rapproché jegeñ mm-hmm. ak jàpp moo arrangé Eumeu Sène mais gis na ne lak li ko arrangé mooy combat boo xam ne. bu gudd lay maanaam boo xam ne diggante bi day am maanaam dañuy soree effectivement parce que njool la ak ndaama parce que lag musul ëmma seen yaay doonte ëmma niñ ko foogee comme ndaama sa wul noonu mhm. ñu bëri xamuñu loolu nag. waaye ku ci ne am na lu arrange parce que dafay am combat yoo xam ne yow mi nga xam ne yaa adversaire sa lay dimbali si moom mooy nga jege ko. daf lay gën a yombal li ngay def am na ñoo xam ne tamit adversaire bi leen di arrangé mooy ñu xaw ko sori tuuti. loolu nag defe naa ñi ko wax. muy Moustapha boobu ak Zil Pascal Faye bu Kaolack. ba ci Ibrahima Khalil. bi nga xam ne moo Keita bu nekk ca Saint-Louis. ñoom ñëpp presque seen ay wax dafa sorante te ay te ay directeur technique la ñu. Mm-hmm. kon defe ñu wax. ah mbër yi ak seen staff yi war nañ ko jël jàngat ko xool ko bu baax a baax parce que mën nga cee sukkandiku ba gagné combat bi nag dëgg la waaw dëgg la ñu leen di nuyu bu baax a baax di leen jëf jaajëfal également mm-hmm. ci seen liggéey bu rafet bi ñuy def macha allah euh, démb itam Babacar mu mel ni face à face amoon na fële ca 2STV ah mu nekkoon euh, dernier face à face boo xamante ni euh, bu diggante Lac de Guerre 2 ak Eumeu Sène mu mel ni demoon nga ca waaw demoon naa ca parce que comme lu ma lay wax rek man làmb laay topp xam nga damay bëgg di di bégal ñi ñuy topp ci Equivox ndax comme li ñu leen di wax rek ah ki lay seetaan amuloo fayam kon kooku defe na defe naa jar na nga xool ba deux heures du matin ba ngir mhm. jox leen ñoom li ñu bëgg loolu moo taxoon ñu nekkoon fa biig doonte seet doon na ngelawoon na mhm. mais nekk nañ fa ba une heure du matin utal leen fa ay image jox leen ko ci Equivox TV parce que loolu lañu ñu seq ak ñoom mhm. parce que tamit li tax mooy ñun ak ñoom mbokk lañu actuellement loolu moo amoon démb ah, ñaari mbir nag mooy seen gisee yu mujj balaa arbitre di souffler ak mu doon ak jéen tamit ñu nga foon muy yaakaar naa ku demee kii wax daal ko tëgg di suñu papa Gaston euh, dafa am lu mu def si làmb parce que 92 ba tey lu yàgg la nga nekk ci benn mbir di ci do di ci yëngutu defe naa jar nga jaajëfal ñu ko ñaanal gudd fa nekk wér di ko ñaanal yàlla nañ ko doon waxee démb lañ koy waxee tey moom la wax ginnaaw suba li yàlla na ko réussir làmbam nag comme parce que ay wax jóg na ci affaire accréditation du ma ko joxee du ko joxe mhm. waaye loolu ñun du suñu problème mhm. man Babacar man nga ma gis nag may euh, nekk ku xaw a kii nga ne Babacar amul fula waaye kenn pu mu fayda waaye nag ki moom ay bésam mhm. ne lii la ciy def wax dëgg yàlla ku ci xuloog moom tooñ ko pataas sama gënal ñam bi ku ci ku ci te sa avocat baaxul am na droit ne kat du jox benn site internet accréditation mm. loolu ay yëfam la mu tëggal làmbam waaye du tere nag ñun itam danañ ko ñaanal yàlla mu réussir bésam waaye ñun tamit fi ñuy gis nii du ñu bu caaxaan jëy dëgg des ñu dugg ci lu ñu boolewul wax dëgg yàlla loolu moom am nañ maan maandu tegi mais maa ngi koy nuyu moom père Gaston mm-hmm. di nuyu makkaan doomam parce que su ma waay la dañuy waxtaan souvent mm-hmm. nuyu ñoom Mbaye Fall ñi ko wër ñëpp ak ñoom Abdoulaat Ndiaye mm-hmm. ba ci Aline macha allah donc euh, di leen nuyu rek ñoom ñëpp di leen jaajëfal également di leen xamal ni rek lamb moo ñu ñor lamb moo ñu saf. Mhm. Ah, di leen jaajëfal bu baax a baax yéen ñii di téléspectateur Equivox TV lii moo doonoon suñu dernier élément tey ci suñu journal de l'arène ah, di leen wax rek euh, di leen jox dig daje ëllëg incha allah mais balaa boobu damay bàyyi Babacar nuyoo tàggatoo. waaw tàggoo bi daal xam naa mooy santaat yàlla rek julli ci yonent bi sallallahu na fi yàlla a dàq mbas mi. Mhm. ba ñu gën a dellu ci suñu ay activité ndax ku ne xam na yëngutoo mhm. réew mi yëngutu te loolu yëpp bokk na ci li nga xam ne day dindi stress mhm. day fàtteeloo nit ñi yenn jafe-jafe yi ndax àddina moom booba mu ñu tukki moo ki jafe-jafe ànd mhm. waaye yàlla nay orof yàlla nañu am lu koy faje rek vraiment di nuyu képp ku nga xam ne yaa ngi safoo di ñu ndamoo fàllu ñaa moom du ko mos a fàtte ca marok suñu waajooju sëñ Fallou maa ngi koy bëgge di nuyu Babacar bu Modou Lama moom tam depuis depuis Petersen mm-hmm. parce que bokk na ci ñoo xam ne dañuy jàpp ci li may def parce que yëkkati yére di la ko jox nga koy sol mm-hmm. te doo ko ko fay ndax lan ngir jàppale la ngir pousser la mm-hmm. moo ko mel ni ki nga xam ne moom mooy Aliou taalibi sëñ Babacar si Aliou bu Yankaaw nekk ca marché Thiaroy moom tamit di doom Bawol ñu bokk dëkk Mbomboy maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu taalibi sëñ Babacar si yépp maa leen di nuyu wala boog di nuyu taalibi seex yëpp <laughs> parce que tamit wax dëgg yàlla sama ay soppe lañu mm. fépp fu taalibi seex ne ci Sénégal rek Babacar rek lay nuyu di la ñaanal jàmm di ko ñaanal tamit bépp doomu Sénégal ak bépp taalibi mm. muy taalibi mu di tak xaadir rek tijaan ak laayeen ak ñasee nag mm-hmm. chrétien sax maa ngi di bégg di leen ñaanal jàmm <laughs> rawatina sama jigéen ba nag séeri docteur Macoumba Diouf